Boy Thiaroye moo ngeem moo ngeemul vert li doomu Tafasil moo ngeem moo ngeem vaccin daw na song ko jàppante nañu jàppante nañu doomu Thiaroye moo ngi wax ko ci suuf moo ngi wax ko ci suuf moo ngi ci suuf doomu Tafasil la ngi jàpp benn loxo doomu Tafasil dafa mel ni dafa bëgg a bëre mbokk yi Boy Thiaroye jàpp na boo Thiaroye boo Thiaroye wax ko ci suuf ñoo ñaar ñëpp dem nañ ci ardo ba doomu Caaroy moo ñu woon ginnaaw Boy Tafasil moo ñu woon moo moo jàkkaarloo ak ñun sol ngembal vax bi ñoo ngi jàppante ba tey làpp di roko ci suuf doomu Tafasil moo ñu woon ginnaaw téere yaa ngi tekkeeku téere yaa ngi tekkeeku faax na ko faax na ko faax na ko faax na ko oh, door na ko eh Boy Thiaroye Boy Thiaroye da ngaa teel a bàyyi mbokk yi fàttali ko Boy Thiaroye moo ñu ngi bu xaw verte bi plaqué na ko plaqué na ko est-ce que daanu est-ce que daanu war na ko ndomba 4 appui 4 appui lamb ji jeex na lamb ji jeex na mbokk yi Boy Thiaroye moo daan. boo Thiaroye moo daan lamb bët bu tagga ngi ci bëñ bu weggee koo ngi ci Mbër moom xam naa du ko weddi moom Pape félicitation bët ba metti na waaye daan nga waaw ah, merci waay onze bilaay bismilaay inu wàllu yàlla jërëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla julli seen bi sant sama yaay bu baax a baax a baax di sant sama waa koñ bu baax a baax Ndeye Mati Ndiaye maa ngi koy sant combat bi daa metti de combat bi dina métti ndax booy bi daa bëri wax quoi groupe groupe moo grand grand yi fi nekk samay grand frère dama leen a luus fa la ne dina tëtati ret bilaay walaay lu mu wax a gars yi envoyé waat ma ko si suuf ma ne ko kii na wax ret ya barki yàlla combat bi toog naa une semaine entraînement ma ndax blessure bilaay walaay taalaay moo tax combat bi moo tax su ma dee a soox sax yàlla mel ni laal na la si bët de waaw dóor na ma waaye gaaw foo mu góor la damaa jaar si ndongo daara ah, billaahi wallaahi sax ma sax père moo ne bul ko toxal sax waaye dama ko doon toxal nit li mooy sa ñaata combat. di mooy sama deuxième combat deux victoires. deux victoires waaw. caaroy mbooloo. waaw caaroy mbooloo di ñaanal sunu ñaq jariñ sunu grand yàlla na ko yàlla may ndam lu rëy. waaw di ñaanal bébé Taya yàlla na ko yàlla may ndam di ñaan yaa xam bawal yàlla na ko yàlla may ndam. kontaan ci yow. maa gën a kontaan seen barke alxuraan di ñaanal jàmm Cheikh Bary suñ benn grand suñ benn gayan bi ñu daan na si jeel bi ñu koy ñaanal yàlla na génn waay la génn ndax yaayam sonn na instant bi daa jeex tat di san ma fiya CFA bépp ak soxna Mati Ndiaye Cheikh nuyu naa la. waaw fay naa la. champion lit simple. <laughs> waaw gis nga dafa leer. <laughs> yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi am jàmm. mais joxoo ma sama wàll kaw. non yaa ñëwul yaa ñëwul te woo ma téléphone tamit damaa jël lamb ji nga bàyyi ma si biir. te xam nga ah, waaw yow yaa am bàyyi si biir. waaw wasaare lamb ay sama waay lañu. waaw loolu am na ah, waaw loolu moom am na. tey ñu gis ngeen ñëw andi ñaari mbër tey. waaw loolu moom dëgg la. andi champion. ngeen waaw ngeen teg waa Bawol dab rek. waaw comme dab lañ ko ngembee rek. waaw ñoom ñaar dañuy ñaan yàlla may ñu ndam rek loolu kese la ñuy xaar nii di góorgóorlu jàpp te bàyyi tamit xam ne gars yi ñu ngi si ginnaaw waaw. looy xaar pour bëre. man adversaire la xaar koo ma jox rek ma jël ba ñu ma dara instant yi adversaire yi ñooy daw. Ah, promoteur yaa ngi lay seet. ah promoteur yi ñu ngi may seet si mais problème adversaire laa am. Ah. waaw kuñ kuñ wax sama avance rek mu delloo ko mu bañ. Ah, baax na yàlla baax yàlla nga ko problème maay bëggee ñëpp di bëggee waa wasaare lamb bu baax a baax. waaw di rafetlu liggéey bi rafet na lool ma allah waaw yàlla bu baax a baax. kontaan nañ ok ñoo far bëggee. Habib baa ngi laaj. ku ci nekk na pa Habib daal na ku soufflé bi daw na. booy ñàgg booy waar. booy ñàgg moo ngi féete à waar à droite. Fatima noo gisee lamb démb bi. lamb démb avant tout dama leen di félicité bu baax a baax di ndax wasaare instant bi wasaare na àdduna mais lamb démb ji dafa nekkoon lamb joo xamante ni. waaw booy ñaag booy waar arbitre bi sifflé na booy ñaag booy waar booy ñaag moo ñëwoon ginnaaw booy waar moom lañ jaakaar lool ñoo ngi lewtoo booy ñaag doo woon ko daw na jël tànk bi booy ñaag daw na jël tànk bi képp na ko képp na ko képp na daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko booy ñaag daan na booy waar arbitre bi daa àtte booy ñaag booy waar booy ñaag. Boy Niang Gass moo daan. Boy Niang Gass moo daan Boy Waar dafa daw jël tànk bi daw moom mu samp kat appui. Lamb Ndiaye nuyu naa la. waaw fay naa la. ci loo nekk. sant yàlla bu baax. gëj nañ laa gis. waa léegi rek ñu gis moom soobee yàlla. Ah. waaw waaw am nga combat. non amaguma mais sant yi gars yi ñu ngi ci waaw. ñu gis ne tey nga andi sa mbër. waaw booy bu mën a bëre. waaw tey di ñu andi Sall Bambey la ñu andi tey waaw di ko ñaanal yàlla may ko rek. waaw lan ko ngeen est ce que xam ngeen ki ngeen bëre. waaw xam nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax a baax waaw. xam nañ ko bu baax ko yabee tey. non li ñu ko yabee ñëw andi fulaak fayda rek ñëw toog ci tàngam waaw. waaw ñëw jàpp ko daan ko loolu lañ ko yabee quoi. yàlla baax na ba ci yàlla baax na ndam rek. Tira. <laughs> champion nii la demee yéen ñaar nag yéen ay bëri drapeau bëreekat drapeau bëreekat di ne la ma fi ci biir stade bi keroog muy daan bay ma ñoom fii la woon ci stade bi yàggul ay bi sëb waat na ci diggante Balla 3 Thiatou Ndakaaru Thiatou Ndakaaru à droite Balla 3 à gauche dooraat na ko fa laay léeg-léeg laa xale yi dañoo ñëwante duwaat na ko daw na jël tànk ba jël daan na ko daan ah daanagu ko daan na ko daan na ko daan ko Balla 3 Balla 3 xoolal xoolal ma lii jëlal lii bàyyi ko bàyyi ko bayi ko bàyyi ko day gas day gas xoolal lii <laughs> booy dañoo waane booy waane lii lan la lii lan la eh, ak ñoo bay fen arbitre baa ngi wax ak ñoom làmb na ak làmb bañ arbitre sifflé na Zora arrêt ak Moussa Guy gi Zora à gauche Moussa Guy gi à droite arbitre sifflé na ñoo ngi lewtoo Zora arrêt moo ngemboo ngemb lu beige bi Moussa Guy gi moo ngemboo ngemb bu bule takk sengoor yi ñoom ñaar ñëpp boo xoolee dañoo tent seen bopp yi mbokk yi moo dox moo ñu wan ginnaaw Moussa Guy gi moo jàkkaarloog ñun ñoo ngi lewtoo mbokk yi ci stade Iba Mar ñoo ngi lewtoo eh, ak Moussa Guy gi Moussa Guy gi daa mel ni ku bëgg a dem Moussa Guy gi daa mel ni ku bëgg a dem <laughs> eh, ni ma ko gisee jàppante ne eh eh laay jël na ko jël na ko doole yamul daan na ko doole na ko daan dafa mel ni ku ko daan na ko jël bu gaaw jël bu gaaw. nii de bu ngeen ko defee du ngeen ñu fi yàggal benn yoon su ngeen defee nii fi guddeel amateur yi dina ñibbi noppalu supporter yi ñibbi ngeen ñibbi nekk ci jàmm. ok Habib laaj na leen ba pare nga Thié Géant Thié moo ngeem moo ngeem ñuul Géant moo féete moo xaw a tuuti moo ñëwoon gannaaw Thié ak Géant Géant Thié daa mel a dem Thié daa mel ni ku bëgg a dem Géant cokkaas na léegi waaye dalul Géant Thié. Géant Thié Géant cokaas na Thié Thié bu duggee noonu Thié ngi xeex kaawu kaawu jël na ko daanu mbot na mbot na ay Géant da a mbot moo ko sut mbot mbot ah xale yi mën nañoo ba jàppante nañu ëñ na ko kaawu Géant door na Thié mu daanu Géant da ko woon doomu pompe ko Géant daan na Thié Géant daan na Thié Géant daan eh, jox na ko avertissement nee na ko gàllaaj bi nga ko sotti alba Abib baa ngeen ni laaj laaj na consultant am laaj na leen. Alliance Baldé moo ngeen moo ngeen bu jaune bi takk morceau jaune bi ci loxo bi ci tànk bi ak ci dënn bi ak Mbaye Khadar Mbaye Khadar moo tax euh, gàllaaj ju bari ci yaram bi Alliance Baldé ngay taxaw du ko déglu <laughs> ay Alliance Baldé <laughs> waaye boo xoolee Mbaye Khadar dafa mel ni moo xaw a tuuti doole boo xoolee dafa mel ni moo xaw a sàcc tuuti doole Alliance Baldé mi daal man ñeme naa ko. Alliance Baldé daal ñëwee naa ko Alliance Baldé na mépp waaye demul ragal naa bu ñu jàppantee benn ji benn cong lay nekk may xanax ngi dox di dem ci moom Alliance Baldé suñu tànk bi taxaw ay Alliance Baldé mu am fit <laughs> may dox dafa bëgg dem dafa bëgg dem ci tànk yi la jëm. Hmm. eh ponkal ci yeel ponkal xajul ci yeel. Alliance Baldé Mbaye Khadar Alliance Baldé moo jàkkaarloog ñun Mbaye Khadar moo ñu wan ginnaaw Alliance Baldé Mbaye Khadar ñoo ngi leetoo Mbaye Khadar dafa bëgg a door na ko door na ko mu remis ko Alliance Baldé Alliance Baldé Mbaye Khadar Mbaye Khadar est-ce que ko am fit lebel nduru Alliance Baldé Mbaye Khadar Mbaye Khadar nga dox fixé ko door na ko ku remis na ko Eh, Mbaye Xadar dafa am fit Mbaye Xadar dafa am fit Alliance Baldé moo moo féete à droite Mbaye Xadar jël ko doon jël ko trois appuis ñoo ngi xeex bëreel bëreel jël amul bëreel Alliance Baldé Mbaye Xadar jël na bi daan na ko da waxoon naa ko waxoon naa ko yamul doole yamul doole yamul état leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko. Alliance Baldé mooy xale benn congo la waxoon naa ko su jeex doole yamul doole yamul. Baol nuyu na ko war. Ah, wu rek. bàyyi xel ci làmb ji. te xam ne tamit xam ma bis yombul quoi. loolu la rek. xam ki ngay xam naa ko niirek rek waaw. xam nga ko wala xam nga ko nii. naa ko nii bu baax. wax waaw. am na ay qualité xam na ko mais man samay qualité moom mu gën a doy ku waaw waaw. li mu toll daal lépp nice. lépp benn combat mu des ñu bëre waaw. yaa xam te nga làmb ji ak nga dugg allah ba ñuy kay sunu kër féete ak sama supporters yi waaw. waaw ah, kon baax na ba ci kër mbër nuyu naa. waa ñu la seey. yaa ngi am jàmm. ñu sant bu baax a baax. fii mbër mu mag mu des benn combat lan moo ko war. xanaa di yàkkamti rek combat bi jeex nga dugg ñaan sunu borom dafa la rek parce que dañoo war a yëngu supporters yi léegi. xam nga ki ngay bëri. xam naa ko bu baax. bu baax wala gis nga ko nii rek. naa ko bu baax. waaw dama ko mu ne moom gis na la ngay bëri rek mais xamul la. man nag xam naa ko bu baax. waaw. Ah. Ah. Ah, baax na. ci kanam ci kanam rendez kanam. Habib baa ngi wax ak ñoom Boy Jules écurie Falaye Baldé Mame Mor écurie Fass combat spécial Habib baa ngi wax ak ñoom Habib baa ngi jox avertissement Mame Mor nee na am nga benn avertissement Mame Mor dellu fa combat de déclenchement Fatima noo gisee combat bi. non combat bi combat bu neex la ndax combat de déclenchement la boo gisee ju booy Jules dafa jógee ci victoire Mamor gëj naa bëre mais su ma juumul dafa mel ne moom tamit ci victoire la jógee mu nekk ñaari xale yoo xam te ci banlieue bi lañ dëkk te booy Jules mii ma gis day dem Mamor. combat bu neex la. non combat bu gaaw ba pare bu gaaw la doon parce que ñoom ñaar dañoo ñawante te daa am loo xam te lu nekk seen diggante ñaar muy ñaari ma la gisee daal. daa mel ni da nga ne du yàgg tey. non parce que ñoom ñaar kenn ku am na loo dencal sa morom te kenn ku nekk bëgg ngaa wone ndax instant bi ku daan da yéeg ku daanu da ngay xaar. est-ce que xam nga ak Pikine la. Fass ak Pikine combat derby la te ñaari xale yëpp ci banlieue bi lañ nekk dañoo xamante ñoom ñaar. Boy Jules tamit ci combat am du yàgg. non combat am du yàgg ba pare nag mu nekk xeltu ama ba pare tuddee boppam Jules Baldé di papaam.

ndeysaan ñoom ñaari xale yi ñu ngi jël par ci Mamor ndeysaan kenn am nga ngemb Mamor dafa mel ne ko bëgg a songale Mamor da ko bëgg a kal daan na ko Mamor daan na ko Mamor ko daan na feeñ boor dañoo feeñ te Boy Jules xamul Mamor dama xamul Mamor am na lu ko bett non ci diggante Zalba Mbaye kiri Bawol ak Boy Bawol kiri dóor dóoraat Boy Baol moom ngeen moo féete seen góos daal Bambey moo féete ndeyjoor abi bi sifflé na abi baa ngi wax ñoom abi baa ngi noonu sànni ko abi bi ko sànni ko Zal Bambey am na lu mu sànni Boy moo féete gauche Zal Bambey féete droite Zal Bambey Boy Baol Zal Bambey équipe Baol mbooloo Boy Baol équipe yi dóor dóoraat maa ngi nuyu Zos Gaga ñoom ñoo maa ngi nuyu Boy Baol moo ñu Zal Bambey nga dox di mel ni kuy Zal Bambey Boy Baol Zal Bambey Zal Bambey tax na boppam meb na léegi def na déplacement Zal Zal Bambey Boy Baol Boy Baol la ñu jàkkaar lool léegi Zal Bambey moo ñu woon ginnaaw Zal Bambey bu ko neexee mu daw dellusiwaat dafa waane Zal Bambey Boy Baol. Boy Baol wàcc na ba toll ak moom mu njool Zal Bambey Boy Baol Zal Bambey Boy Baol cokkaas na léegi waaye dalul Zal Bambey moo ñu wan ginnaaw Zal Bambey Boy Baol ah Boy Baol da koo Zal Bambey Boy Baol Boy Baol doo doo Zal Boy Baol door na ko léegi Boy Baol door na ko léegi Zal Bambey Zal Bambey Boy Baol am nga combat tey. xale bi nga xamante ni combat bu mu bëree duggoon na top 5 kookoy Boy Bawol écrit doo doo dina am ci moom yaakaar Zal Bamba doon na ko léegi jàppante nañu jàppante nañu Boy Bawol dafa mën a bëree wet moo ngi bëree wëndeeloo ak moom ay waay daw làmb làmb gi noonu Boy Bawol jàpp na ñaari loxo de jàpp na benn Zal Bamba bon Boy Bawol loolu wóorul Boy Bawol Boy Bawol loolu wóorul Boy Bawol Boy Bawol Zal Bamba Zalba Mbaye moo ñu woon ginnaaw Boy Baol lañ lool Boy Baol ko añ benn loxo bi Boy Baol dafa mën a bëre wet doon na léegi peekil Boy Baol doon na léegi peekil ñoom ko nekk sa loxo gi ci ngemb zongale na ko deet deet deet Boy Baol Boy Baol mu def loolu dafa diis Boy Baol Zalba Mbaye Boy Baol Zalba Mbaye Boy Baol da koo bëgg a songale da koy ko yëkkati ko sal déedéet déedéet Boy Baol déedéet Boy Baol Boy Baol Zal leen dànk laa mujjee stade baa ngi toj Boy Baol Zal Bambey Boy Baol Zal Bambey eh, Boy Baol daan na Zal Bambey Boy Baol daan na Zal Bambey Zal Bambey Boy Bawol daan na Zal Bambey Boy Bawol daan na Zal Bambey Boy xale bi dafa mën a bëre Fatima noo gisee lamb Fatima. waaw mu gis nga Boy Bawol 2 dafa am say-say la ndax boo gisee zongale bi da koo tenté deux fois demul mu tantawaat nga gis kii moo déclenché action bi ki nga xamante ne moom mooy euh, Zal Bambey mais daa da koo pëtaxal bàyyi ko mu dem. gis nga ko mais xale bi maîtriser na ko am ku am sañ la waa parcelle nañ ko bàyyi xel moom mooy Boy a béyoon dafa ñemee dëggal am andi mais moom li mu ko xaw a ëpp tuuti mais boo gisee da koo xaw a ëpp masse tuuti mais du doole ndax zongale zongale na ko wet la ko jox nga gis xaw naa diis mais xale bi dafa tànte te kii comme que ki tànte kay dafa jël risque jël na risque daan tey Fatima info réew mi moo nekkoon sama consultant waaw Wassare kontaan nañ ci yow. nga nekk frère bu baax bu mën a partager yow ñu lay ñaanal ndax honnêtement ñu ngi lay seetaan te am nañ cofeel ci yow te xam nañ ni allah fi nga teg sa tànk foofu la kon ñun ñëpp ñoo bokk affaire bi yal nañu yàlla may ñun ñun ñëpp yal nañu yàlla may jàmm. maa ngi seen ginnaaw. non baa ñu nekk sa ginnaaw ndax maa ngi seen jigéen. kontaan naa ci yow